alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala wa sahbihi wa man tabiahum bi imaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di ziar te di leen ndokkale ci bis yu yi ñu nekk muy bisu waajal màggalub Tuuba ñuy ñaan suñu borom àggalañ ci ak jàmm te ñu defee ni ko borom bëggee te ñu dëppoo si ak ngërëmam siyaare yu ak eh, nuyoo yooyu ñu ngi ci giital ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalifatu général des Mourides di ñaan suñu borom dolli ko ak wér sàmm ko ba mu àggale mbooleem naal yi nga xam ne am na ko yéene liggéeyu lislaam yéene ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mu mottali ko na mu ko bëggee te ñu ànd ko ak moom ginnaaw loolu ñu ngi leen di daral ci bërëb bi nga xam ne ci lañu gaaral lenn ci ay e, ay mbir yoo xam ne fa aju ci jumaay Tuubaa ji te waa Moukhaddamatoul ma di ko amal di leen dalal tamit jataay yi nga xam ne dañ koy amal ci biir bërëb bi lii meg bokk ci jataay yooyee ñuy ñu siy amal ñu war ja waxtaanee kenn koo xam ne moom la jagleel exposition bi ren muy Serigne Mbacke Bousso radiyallahu anhu ñu war a ñëw ab tënk ci ak dundam xam nañ ne dundam lu yaatalu fees dal la mëne su ko waxtaane ci benn jataay waaye ab jukki rek lañ ciy indi incha allahu taala ñu war see ànd ak nag sëriñ almudir sëriñ bu sa Xasan nga xam ne du ku ñuy xam la ci jataay bii ku ñu min la ci jataay yu mel nii bu ko defee du ñu guddal ci wax ji suñ sëriñ Fadlu la ñu ñëwal rek ci ab tënk ci dunduk sëriñ Mbàkke Bousso tàmbaleeku ci ak ganeem jamonoom akum njàngam ak li nga xam ne moom mooy relation yi nga xam ne amoon na ko digganteem ak Serigne Touba radiyallahu anhu ak ci njaboot ak Serigne bi ak euh, magi taalibe yi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ci ron keppaaru Serigne Touba radiyallahu anhu ak euh, borom xam yi nga xam ne ñoo jamonte ak moom yan relation la amoon ak ñoom bu noppee doo ñëwal nag lenn ci ay injaasaar yi nga xam ne amal na ko muy ay réalisation yoo xam ne amal na ko ci ak dundam daal ñuy tënkal nag taxawaay yi nga xam ne amoon na ko ci jumaa ji di jumaa Tuubaa ci ndoorte ga ba ni mu ni boroomam radiyallahu xam naa sëriñ Fadlu dañ lay jox kàddu gi bu ko nga ñëw ñun ci waxtaan wi bismillah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñu soo bi ñu ngi lay nuyu jaar na ci yow sunu nuyoo mu àgg ci mbooleem ñi nga xam ne ni ñoo ñuy topp ak di ñuy déglu nuyoo bi ak siyaar bi ñu jiitu seen xalifatul aam lil muridina Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi waaye mottali ay naanam waaye ndokkeel mbooleem jullit yi ak taalibe yi fu ñu mën a nekk rawatina taalibe yi ci weer wu ñu weeru safar. di dox jëm ci fukki yëg juróom-ñett di ñaan suñu borom àgg ci te mën koo joxee ni borom bëggoon ku ko joxee noonu te jotee ngërëm ak ngërëmul suñu borom subhanahu wa di nuy ak ziar bu baax sëriñ Omar Bousso mi nga xam ne ni mooy xalifat suñu Mbàkke Bousso di ko ñaanal li ñaanal Cheikh mu taxaa ak njabootu suñu Mbàkke Bousso gépp nga xam ñoo ne ci gannaawam di nuyu bu baax daayiratul Muxaddamatul Xidma jël nuyoo bi teg ko ci loxo al imaam sëriñ Afia mu jotul ñu ko mbooleem ñi nga xam ñoom lu bokkal daayiratu muqaddamatul xidma di def liggéey bu am solo ci jumaa ji ak barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ñoo ne ci biir dëkk bi niñ ko sàkkoon démb nag ñëwoon nañ fi démb ak délégation bu mag tey ñu dellu si waat fi ànd ak lenn ci bokki taaliba yi ak bokk yi nga xam ñoom lañu àndal ñu ñëw ngir jëmmal jataay bi waxtaane tuuti ci dund sëriñ Mbàkke Bousso gannaaw bu ñu rafetloo li ngeen ko jagleel te mooy gaaral bu am solo bi ngeen koy gaaral ci biir màggal gi te dara jaale ko sëriñ Mbàkke Bousso loolu tam ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm nga ko waxee nag danañ tënk tuuti ci dunduk sëriñ Mbàkke Bousso ci ak juddoom akum njàngam diggam ak sëriñ bi diggam ak njabootuk sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waaye diggam magi taalibe yi mu bokkaloon liggéey ci kër sëñ bi waaye itam digg mag boroom xam ak góor yàlla yi nga xam ñoom la jamono teeloon waaye digg mag sax ñi nga xam boroom yu xam lañ te duñu woon ay sénégalais dana ñëw tam ci ay lim jot a ci ay mbiram ci wàllum bind ak wàllum jëf loolu daañ ci gaaral tuuti ak lenn ci taxawaay ñu amoon na ko ci barab bii di jumaa ji nga xam mooy jumaay Tuubaa bu ñu nee sëñ Mbàkke Bousso nag turam dëgg-dëgg mi ngi tudd Mouhamad ibnu Mouhamad ibnu Mouhamad al Bousso bi ñu gën koo xam ci Serigne Mbàkke Bousso mu gënee àdduna ci atum 1864 ci dëkk bu ñuy wax Mbusoobe nekk ci Jolof cosaanam tam ni mu ko waxale boppam ñi ngi cosaanoo ci ay tukkulóor te mooy Fuuta Tooro mooy seen cosaan ci dëkk bu ñuy wax Gollare ni mu ko nettalee nag nee na am na benn mbokkum naar mu mës a ca xijaas mooy fi Arabie Saoudite nekk léegi ñëwoon Sénégal di def ci commerce bi mu ñëwee nag am soxna ci bokki tukulóor yi takk fa soxna am ci jenn doom ju tudd Aliou moom daal di dellu fa mu jóge mooy nag ba mu dellu fa mu jóge woon nag xamaatuñ ci moom dara Aliou mooy mu fi bàyyi woon nag ay nijaayam ñoo santoon Bousso moo tax ñu jël seen sant nijaay santale ko ko waaye nag àll yu moom mooy cosaanu mbusoobe yi nga xam ne di ñoom lañ xam ci diggante Bawol ak Saalum ak Jolof foofa lañu sox ko mu ne nag gannaaw bi nag ñu tasaaroo ci biir réew mi am ku dem ñu dem Saalum am ñu des Jolof am ñu des Bawol li leen indi Jolof tam mooy kenn ci ñoom la mbokkam réeroon amaat la mbokkam réeroon mu di ko seet si bi mu ñëwee ba ci Jolof buur ba jolof ñu xamal ko ne ko am na ku baax wàcc sam réew te mel na nii mel na nii fexeel ba téye ko buur ba di ko teqamtal di ko yeexamtal di ko yeexamtal ba far ko fa may soxna su sant siise foofa nag ca la mbusoobe yi féete jolof féete bawol foofa lañ cosaanoo ña féete saalum nag mooy ñi nga xam ne nii ñoom la seen mbokk moomu demoon foofu kon loolu mooy cosaanu mbusoobe gi suñ mbàkkee nag ne sant buso ñu ngi koy bindee ba ak siin nee na kenn du ko bindee ba ak sodd nee na sodd lu ci bees la waaye cosaan li mooy siin ndax sodd ku nekk xam ne ni son boobu amul ci wolof sodd maanaam baat la boo maanaam araf la boo xam ne nii amul ci son yi ñu xam ci wolof moo tax siin la wolof am muy Bousso mu ne kon ba ak siin lañ ko war a bindee mu ne ba ak sodd gi nag kon lu ci lu ci raxal loolu mu def ci liggéey bu am solo ndax xam ngeen ne li ñuy bind ci arab ak ci tubaab léeg-léegi day dema dem ba day sànq sunu sant yu baree bari te bàyyiwuñ ci xel fii ne boo dee bind buso ci tubaab dangay bind b o u 2 s o buñ koy bindaat ci wolof ci arab daal di bind baa ak waaw ak siin ak waaw muy buusoo te nun sant nu buusoo buso rek lañu sant loolu maanaam ci ni tubaab yi indi ci suñu mbir ci la bokk boo doon bind njaay fi mu ne da bind nd in njaay te njaay la ñuy wax duñ dañuy wax in njaay boo doon bind ñaŋ dangay ngay bind n i n g ñaa ñun duñu wax ñaa ñaŋ lañuy ñuy wax nga gis ne kon loolu lu mat a taxawal suñ mbàkke teel koo seetlu yàq gi ñu yàq suñu sant yi te lenn ci yeneen làkk yi ñu jëfandikoo dañu ko jural moo tax mu teel a bàyyi loo xel ne sant yu nañ koy bindee baa ak siin kon foofu mooy cosaanam ñu sant bu Bousso jële ko ci seeni nijaay mu gane àdduna nag ci diggante ñaari waajur yoo xam ne nii ñu ñu xam lañ ci diine te muy sëriñ bu Serigne sëriñ bu Mbusoobe maam Astawaaru mooy waajuram waaye sëriñ Serigne Mbusoobe ak soxna maam Jaara mi waajuru Serigne Touba radiyallaahu anhu ñoo bokk ndey ak baay kon moom doomi nijaay lay doon ci sëñ bi ci fànn googu waaye waajuramu jigéen mooy soxna Faati Mbàkke soxna Faati Balla Mbàkke al Kubra moom it doonoon doomi maam Balla bokk ak maam Mor Anta Sali wenn wayjur foofu mu doon fi doomi bàjjan ci sëñ bi moo tax sëriñ Tuubaa daa ko wooyee yab na xamati wa xaali da kon waaye yow sama doomi bàjjan ak sama doomi nijaay mu nekk kon ci cosaan loo xam ne li ñu xam la ci diine ak xam-xam ak njub ak tegu ci yoon mu màgg ci diggante keppaari waajuram yooyu kon foofu la gane àdduna bi mu gënee àdduna tam ba toll ci jàng li ñu baaxoo defal doomi soxna yëpp ñu way juróom moo ko dalal alquranul karim waaye nag wax nañ ne ci saalum booba njaboot ji ñu ngi saalum ca la fa sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ñëwee woon di nemm ko si njaboot gi bi mu ñëwee nag sëriñ bu soobee ci xam gu mu xamoon sëñ bi ne ko da dem ci ku ñuy wax sëriñ maxtaar si am na lum la war a wax fekk na booba am na lum seetlu ci sëñ bi te xëy na mënu ko wax directement mu yebal ko ci suñ maxtaar si ba mu demee ne suñ maxtaar si moom moo ko ne gis naa la nga bëgg ay def nangam ak nangam waaye na nga toog fii te yor njaboot gi daal ne ko nag na nga fonk maam Thierno na fonk sëriñ Mbacke moo foofu la ñu fi tàmbale ñu wax ne sëñ bi nag bi mu dellusee dafa laajte àlluway sëñ Mbacke ñu jox ko ko fekk na boobu mi ngi toll ci robo ju mujj ci sóoratu Taaha te mu tàmbale wala tamut dana ay léegi ne aaya boobu rek am na lu muy junj ci seen relation ñoom ñaar sëñ bi daal ko cee bindal bind bu tooy moom nag daal di wàññiku fas yéene ñibbisi wax na bi suñ bàkkee ñëwee nag laajte sëñ ñu ne ko dem na daal di jël àlluwaam daal di daw topp ci sëñ bi ba fekk sëñ bi ci garabu bencene bencene mu toog fa di serlu nee na sëñ bi ne ko yow laa doon xaar fii yow laa doon néggandiku fii nee na keroog tàng na tàngoor wu jéggi dayo woo xam ne nii sëñ bi xelli na fa ak lem ñu bokk ko jëfandikoo ñoom ñaar moo tax suñ Moussa nee na sëñ Mbàkke daana ko wax ne ko sëñ bi daana ko wax ne ko léeg-léegi ndax Mbàkke yaa ngi fàttaliku suñu lem nga doon ko am lu mu koy junj boobu nag la seen àndandoo tàmbalee sëñ bi nag ne yow yaay sàn nandoo nandoo mooy koo xam ne nii nawloo nga ko daal ne tam bu dul woon ci man di yow loolu boo demee ci marché bi sëñ Moussa Ka def sëñ Mbàkke da ko ci fekk mbind ko kon sëñ bi foofu la ko jëlee mottalil ko àlluwaam ci alxuraanul karim jàng karim ba àlluwa ji mat mu boole ko maam Mor moom soxna jaara moo ko tooral tooral mooy mooy mot moo ko leeralal alxuraan ji mottalil ko yenn yi nga xam ne nii mëntoon a ñàkk bañ xam ne xereña alxuraan ji sëñ bi daal koy dalal téere xam-xam yi jàngal ko téere xam-xam yi nga xam moom lañ gën a miin daan ko jàng mu yi njëkk yi ba mu noppee door koo yabal ci ku ñuy wax sëriñ sàmbatu kulóor ka ngir mu dem fa jàng fa yenn ci téere yu mag yi ba mu fa jógee mu yebal ko dëkk bu ñuy wax Ngéeg Fall mu war faa jàng yeneen téere yoo xam tam yuñ fa daan jàng foofa la foofee ci Ngéeg Fall na ci atum 1883 fa la ko woote sëriñ bi fekk mu daal fay jóge daal di ñëw yeesal ak njaayeen dem digganteem ak sëñ kon am njàngam foofu la jaar moom yàlla def na jot te génn réew mi di sàkku ji feneen xam-xam fu dul ci biir Sénégal li ci sëñ bi jàngal ko ko ak ñi nga xam ne sëñ bi moo ko yebal mu dem foofu yokk fa ab xam-xamam kon am njàngaleem nag foofu la tàmbalee foofu tam la ëpp lum mu jàng foofu la ko jàng waaye nag suñu borom defaloon ko fat fatu mooy yàlla dafa na ubbi ko goo xam ne nii lu tiim xam ko moom ci boppam demoon na bay wax ne su ma yëkkatee sama xalima jëmale ko ci sëpp ko ci daaj yi jëmale ko ci kéet wi nee na baat yi di njëkkalante mu nekk naan ma bind ma bind ma nee na foofu la toll woon ci xam-xam nga xam ne boo gisee ni muy làkki arab nga xam ne xereñe woon na làkku arab lool lool te boo gisee yenn ci mbindam yi nga xam ne ku xereñe woon fànni xam-xam yi la kon am njàngam noonu la deme gannaaw bu sëñ bi wootee nag ci 1883 nag ci la diggam ak sëñ bi gën a yeese mu daal di yeeslu jaayanteeg sëñ bi bokk ci ñeen fukk yi njëkk a jaayanteeg sëñ bi bokk ci juróom yi nga xam ni itam ñoo njëkk a tàbbiwaat ci loxol sëñ bi gannaaw ba mu defee déclaration bi ci Mbàkke Kajoor sëñ bi nag daal tax taxaw moom ci fànn yëpp ñu ànd nekk mbakke Kajoor ba jóge fa ñëw ànd nekk Mbàkke Bawol xam ngeen ne 1885 booba sëñ bi ngi woon ci benn xalwa ci Mbàkke Bawol fii ci jumaay Mbusoobe ji ci la doon taalife téere boobu nga xam mooy Masaalikul Jinaan wax nañu xalwa boobu ba mu koy def mook sëñ Mbàkke ñëw bokkoon fatu ca wax nañu sax suñ mbàkki daana ko nettali ne njëkk bay taqoog sëñ bi fànn boobu maanaam ku amoon jëmm la waaye nag bi ma taqoog sëñ bi ci la ma doon def joxe dundin woo xam ne nii maanaam moo tax mu mel nii mel nga xam ne wax nañ ne sëñ bi nga nëbu baraay ak kubéeru satal ak ndox moom lañ daan jëfandikoo waxtu ba waxtu wa delsi suñ mbàkke nag nee na ba ma jaaree foofu nag ba ma ca jógee laa mënut a weesu loolu moo tax ma mel nii ma mel ci wàllu tuutaay waaye lu ko jiitu ku amoon jëmm la wax nañu sax bis am na ci bokk yi ku fa ñëw yërëm ko ne ko kii nga tax taxool muy sëñ bi moom du nit nit mën ta ànd moom bëggoon daal xëy na léeg-léegi bu amee posé mu daal di porox ndoll ñëw ñu mën koo toppatoo lu xewloo waaye ba ko sëñ bi yëgee dafa ko gën a daal di tëj gën a yokk tëj ba kon foofu la ko sëñ bi tarbiya jàngal ko Masaalikul naan moom ci boppam moo tax wax na sëñ Mbàkke daan ne wax ne masaalikul jinaan day ku dul sëriñ Tuubaa maa la ko gën a dégg ndax moo ma ko jàngalal boppam ci bees bees mbind ma ñu ànd nekk foofa sëñ bi jógee fa ñëw Daaru Salaam mu ànd ak moom ba bi sëñ bi sanc Touba mu ànd ak moom ci sancu Touba bi wax nañu sëñ bi bim mu sancee def fi juróom-ñaari atam yooyu war fee jóge dem Mbàkke Baari ngir booba barab bi la mu bëggoon a liggéey ci nit ñi xëy na barab mayetu ko mu ba séeni dem Mbàkke Baari yee salaat sancu maamam maam wax nañu bi muy dem Mbàkke Bari nag suñ Mbàkke la woolu ba mu ñëw mu ne ko dangay toog ci këru Tuubaa gi ku fi ñëw nga xool ko su ne gis nga ne la muy mën nga koo faj mu yam fii nga faj ko mu yam foofu su fekkee gis nga ne ku war a jàll si Mbàkke Bari la nag nga door koo yabal mu jàll si Mbàkke Bari nee na suñ Mbàkke ne ci loolu ab diir waaye yàggul nag mbooloo mépp daw wuti sëñ bi di ko fekki Mbàkke yi suñ mbàkki dem daal di tuxu dem mbàkki bari fekk fa sëñ bi mbàkki bari na xam ngeen ne ci la sëñ bi demee ci géej gi ak la ci xew lépp loolu defe naa ne muy tukkib géej gi départ mbàkki yi ak nañ ko attee ci 1895 ba ne ko dañ lay yóbbu Gabon ci exil bi nga xam ne ni tey moo waral fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar wax nañu itam bi sëñ bi laataa dem ci mbàkke yi yebaloon na sëñ mbàkke ndar ci kiñ daan wax naa ko yaay borom ndar ngir mu waxtaan ak moom ci ay mbir wax nañ ba mu demee ci xam gum xam waxtaan bi mu waxtaanee ak tubaab boobu ba noppi tubaab bi dafa bég ba jox ko ay cadeau yu baree bari ne ko boo demee nga joxal ma ko sëriñ gannaaw bi nag la yëf yi jaxasoo ak ja yenn yi ci dugg ba tey tukki bi nekkoon lu mën ñàkk ba sëñ bi jóge fi dem ci géej gi. bi fi sëñ bi jógee dem ci géej gi nag xam ngeen ni tubaab bi dañoo waxoon kenn dootu dëkk Mbàkke Bari waaye kenn dootu dëkk Touba. njaboot gi mag ñi daal di tasaaroo ku nekk seet foo xam ne nii fa nga bay sa bopp Sëñ Mbàkke nag ci at moomu di atum 1895 ay natt yu baree bari daf ko cee dal ndax xam ngeen 1895 ci la sëñ bu soobe waajuram génn àdduna ci la tam sëñ bi dem ci géej gi tukkib géej gi waaye itam këram daal di lakk ba jeex tàkk moo tax mu ko daan tudde amul husni mooy atum njàqare noonu la ko daan tudde bi mu def lu ko loolu dalee nag la fi jóge dem dëkk bu ñuy wax kër sërif kër sërif diggam ak Tiwaawan ci juróom-ñaari kilomètre ci lay tomb fekk na am na benn naaru marocain bu fa ne woon dib sërif daan dem Maroc di ñëw di indi ay téere yu baree bari suñ mbàkkee nag demoon tax taxaw moom ngir mën a yeesalaat kaggu gi nga xam ne amoon na ko te muy ay téere yi nga xam ne dajaloon na ko ngir mën koo yeesal diirub li sëñ bi ne ci géej gi nag muy juróom-ñaaraat yi moom foofu la ko suñ mbàkkee nekk ba ci atum 1902 1902 nag la jógee kër sërif ñëw fii ñuy wax bi mbusoobe mbusoobe booba njabootu bi ñu ngi ci gannaaw ndaam ci arrondissement bi foofu ci raay bi noonu wax nañ ne fii la njabootu bi gi newoon ci atum 1902 ci la fa sëñ Mbàkke jóge kër Sërif ñëw daal di sanc fekk njaboot gi foofu ci mbusoobe bi mu fi toogee diir daal di ànd tuuti ba daal daan leen tuuti sañc fa barab def fa daara bu xëyee dem jàngale ji fa bu ngoonee mu ñëw fanaan si ci njaboot gi daara jooju moom la tudde woon Al Azhar tuddi ko lasar lasar mooy quartier bi ñuy wax mbusoo bi tey ci biir Touba te sëñ Thierno moom suñu laay féete woo fa nekk fa kon foofu la nekk 1902 ba 1916 wala 17 wala 18 ci ne ko ñaan ñuy waxe waaye daal def na fa diir bu mat at ak juróom yi teg aslëf jàngal fa mbooloo mu baree bari nag ci magi taalibe yi waaye ci njabootu boppam foofu la leen formé jàngal leen ci 1916 nag ci ni ko ñenn ñi waxee ci la jot ndigal ci sëñ bi booba sëñ baa ngi njaareem sëñ bi ne ko da ngay dem ba Touba ci sama kër ga ñu wax Touba boo demee nga xool ci wetu càmmooñ gi nga natt fa lu tollook ñaari miil nga sanc fa ngir naal boobu ma fay def bu noppee nga man ngir naar ba ma fa am bu noppee nga man di ko taxaw booba sëñ bi naal na jumaay tuubaa waaye jumaa ji booba taxawagul mu daal di ñëw fii ci këru Touba gi wax nañu natt na ko ci fànn yu baree bari natt na ko ci lu muy jàng natt na ko ci li muy xool natt ko ci jéego ba mu jox ko barab bi nga xam ne tey fii la nekk mu daal fiy sanc barab bit turu gédé wi ñu bari dañ ko ciy dégg jàpp ne sëñ Mbàkke da koo tudde gédé ngir dabu gédé ga ca Fuuta ndax jàpp ne ñoom ay tukkulóor lañ loolu itam xëy na dañoo tombe waaye jotewuñ dara ñaari gédé jotewuñ dara ndax mbusóobee seen cosaan ci Fuuta gollare la te du gédé gédé mi ngi ci département podoor waaye moom ngay njëkk a jot dox lu yaatu lu sori door da dëkk bi ñuy wax gollare te gollare mooy cosaanu mosoo bi kon turu gédé wi dañoo tombe gédé wax nañu ab déeg la boo xam ne nii niñ ko xamee jeexit ya ba léegi ma nga fa ñu ne ba mu ñëwee comme sëñ bi da boo demee Touba jox ko woon aw tur moo tax bi mu ñëwee mu bàyyi ci tur wi ñu koy wooyee gédé comme ni ngay dégg mbal di dégg ndindi di dégg tindoo di ak yu mel nga xam ne ay turi cosaan la yoo xam ne nii sëñ bee fa sanc la woon njaboot gi waaye bañ ñëwee kenn soppiwu ci tur wu mel noonu moo tax turu gede wi wéy ci baat ba léegi nga xam ne suñu mbàkkam dafa jàppoon ne comme sëñ bi da boo demee gede moom jàpp na ne kon sëñ bi wutalu ko dëkk waaye da koo dugal ci biir Touba. gede googu nag fi la nekk 1916 di 18 formé fa tam lu baree bari ci mag ñi jàngal fa kilifa yoo xam ne nii mën nañ cee tudd ñeen nag ku mel ne sëriñ Massamba Mbacke foofu la ko doon jàngale ku mel ne njabootu sëñ bi si Abdoul Khadir foofa la ko yore woon ak ñeneen ñoo xam ne nii foofa la nekkoon ci moom mu leen di jàngal ba ci sëriñ Abibu Mbàkke al imaam nga xam ne ñu bare bari ci dëkk bi ci loxoom lañ jànge ak sëriñ Mouhamad Dem mu njaareem foofu la leen yoroon ak ñu mel ne ñoom ñu baree bari muy ci njaboot gi suñ Moodu Roqaya moom Daaru Salaam ak ñu mel noonu fa la leen yoroon jàngal leen fa ci njabootu sëñ bi nekk fa nag ba ci atum 1946 ci wàccub liggéey ñu denc ko foofu ci Guédé ci taxawaay Cheikh Mouhamadul kon diggam ak sëñ bi sëñ bi wóolu woon ko lool nag ci fànn yu baree bari ndax boo demee ci téere bi sëñ Modou Bousso def ci moom muy biographie sëñ Mbàkke da cay wax ne sëñ bi lim ko joxoon mooy wàllu atte ak ubbee ak tontu leetar yi nga xam ne ni moo daan ñëw ci sëñ bi tey jóge ci boroom xam-xam yi ak ci gox yu fasante ci bitim réew ak ci biir réew mi sëñ bi leetar masaan ñi moom la koy tontuloo laajub diine te mu masaan ñëw moom la koy jox wàllu jàng ak jàngale moom la ko féetale woon ci yoon bi waaye itam lépp luy mbirum dund ci diile ci biir tarixal muridiyya sëñ Modou wax na ne sëñ Mbàkke la ko sëñ bi farale woon mu def ci liggéey bu am solo nag ba sëñ sëñ sëñ Modou wax ne bi muy wàcc ci liggéey boo fekk na mu làq ci wala boog sëñ bi bi muy génn àdduna fekk na sëñ Mbàkke am na ngërëmam te loolu itam firnde ji ñu ci am mooy boo demee ci mañ moo bi nga xam ne nii si Abdoul moo ko dajale am na ci lettre boo xam ne nii sëñ bi ba nga ko bindee daf ne bu ngeen demee na ngeen ko wan al muridu sadiq bu Buso nga xam ne kon moo ko signeel ak muridu sadiq xam ne ma ngeen ko wan muridu sadiq wa shaqiqi Cheikh Mamadou Diarra loolu lettre dam bu ñëwee ngeen wan leen ko kon loola sëñ bi moo ko siñel na ko ak muridu sadiq xam nangu na sëñ bi doyloo ko ci bokki taalibe yi doon wàcc liggéey ci kanam sëñ bi yëpp ñi cëpp magi taalibe yi sëñ Mbàkke la daan yabal mu dem taxawu leen ci wàll li ñuy wax jullee ak toppatoo leen bañ jébbal leen seen borom sunu borom subhanahu wa taala sëñ bi ci boppam it bi mu demee ba xam ne mi ngi bëgg a ci boroomam ci li ñu nett la ci histoire wax nañu woo na Cheikh Mamadou Moustapha ne ko bis bu dogalub sunu borom ñëwee na nga ma yóbbu Touba te boo demee nga toog teg ma ci loxol sa baay Mbàkke loolu mag ñi nettali nañu ko ci façon yu baree bare moo tax wax nañ ne sëñ bi ci ñaar fukki fan ci weeru muharram bi mu agsee fii ci Touba wax nañ si Amadou Moustapha dafa yëpp léggéde ndaw li doon woo si suñ mbàkke wax nañ bi mu ñëwee fekk nañ ko mu waaj ba jekk ne ma da jàppoon naa ne sax du agsi fii bi mu ñëwee moo taxaw sëñ bi ci li ñuy wax li ñuy defal lépp jullit bu fi bàyyi ko mu toppatoo ci sëñ bi bañ defal ko ci këram gi nga xam ne tey fi la tëdd di nopp xiste sebi ci amit mooy ne wax nañ ne bi ñëwee bi ñu toogee ñëpp toog sëñ mbàkke moo jóg dox ay jéego ba ne fii de la ma waxoon ñu wax ne bañ xoolee itam gis nañ màndarga moo xam ne nii ba ko fa sëñ biy def kam àndaloon di ko fa def booba ma nga woon ci biir mbooloon mu ne lii de ba ko fa sëñ bi def ñoo ànd waaye xawmawul lu mu ci jubloon boobu mooy barab yi nga xam tey fii la sëñ bi tëdd di noppalu kon sëñ Mbàkke moo taxawu sëñ bi ci fànn googu ci li ñuy defal lépp ku ñuy defal nit koo xam ne nii jullit boo xam ne nii dafay bàyyi ko daal di waar mbooloo mi tam nag delloo leen ci suñu borom ci fànn yu baree bari xam nekkee ci toppatoo sëñ bi ba waxtu fajar jot ñu nodd dafa joxe ndigal ñu nodd biñ noddee mu daal ne nañ bàyyi ni doon def lépp dem julli ji ndax sëriñ bii kat lépp loo ko masaan di defal ba julli jot da koy dakkal ba julli ba noppi door ñëw àggale boo ko bañee def ba def ba noppi tam bu ñëwee la nga defoon ci biir julli gi moom da koy dindi moo tax ñu daal di laf lañ doon def lépp dem julli fajar ba noppi daal di ñëw àggale liggéey boobu ñu doon def wax nañu keroog ci guddi googu muy guddi gu tiis gu metti am na ci magi taalibe yi teew woon jotaay bi moo xam ne ni lii dal magi mur yëpp dal na ko te mooy ab jël li ñëwal na ko bam génne kàddu gu xaw a kawe waaye suñ mbàkke moo ko daal di jàjji ne ko xanaa diw xamoo ne bañ ñuy defar bisub tey bii moo taxoon ñu ñuy defar mu ànd ak akuk dalam akum xelam ba lépp sotti mu waar mbooloo mi daal di nag ku nekk dellu sa kër mu ko beneen étape bu bees nag daal di tàmbali ci diggam ak njabootu Serigne Touba radiyallahu anhu bi ko sëñ bi wanee gannaaw tam cër ba mu joxoon sëñ bi tam mu daal koy yeesal ci njaboot gi nga xam ñoom la sëñ bàyyi gannaaw donte ñoom wàcc waayu waajur la amoon ci ñoom waaye ku nekk xam na ne yoonu murit baraane waajur wooy gis mu fiy topp doom koo xam doom lay doon ci moom mu topp ko ba nopp teewul bu nekk waajur ci moom kon tam noonu la defoon diggam ak njabootu sëñ bi li tax ñu ne waajur la woon ci ñoom tam nag wax nañ sëñ bi moo ko waxoon am na mag moo ma nettali ne ma Cheikh Mamadou Moustapha Sëriñ Tuubaa waxoon ne ko lépp lu ñuy def lépp lu doom ji bëgg ngërëm di def ci waajuram dama bëgg nga defal ma ko sëñ Mbàkke mi kon teeloon na leen koo joxoñ xam leen fi mu leen féete waxoon leen tam nag yu baree bari seen digg ak sëñ Mbàkke ci yoo xam ne nii boole woon na leen moom moo tax bi ko sëñ bi wanee gannaaw tam nag bañ topp toog ba noppi yoonal gannaawam tam ni ñuy defal jullit yëpp ba lépp leer wax nañ ne ay rumeur ay yu siiw commencé woon na di wax ne murit dañoo wuute ci kan moo war a wuutu sëñ bi ba ñenn jàpp ne sax ay coow dafay amoon te loolu dara wéru ci buñ delloo ci mbindum sëñ Mbàkke bind na benn lettre ki ñuy wax ki fi nekkoon ñu koy wax yaa moom Ndar gouverneur général mu bind ko lettre di ko ci leeral ne ko wuute mënta am ci gannaaw sëñ bi ci biir njabootu sëñ bi mu ne ko ndax sëñ bi ñetti mbooloo dong la fi bàyyi ay maanaam ñi mu bokkal maam Mor Anta mooy ay rakkam ndax boobu moo ci magoon ak ñi nga xam njabootu boppam lañ ak bokki taalibe yi mu ne ko nag ñi mu bokkal maam Mor Anta jàng nañ lislaam xam nañ diine te xam nañ ne sa seen waajur mënu fee jóge ñu bokk ñoom ñëpp donn ko ba noppi bëgg a donn waajuru jàmbur mu ne kon ñoom mënuñoo ñëw di xëccoog Cheikh Mamadou Moustapha ak njaboot sëñ bi ndax xam nañ ne ñoom ñoom bu dee ndonoy sëñ bi ñoom ñoo ko yelloo ñoom la ko lislaam jox kon mu ne ko xëccoo mënta jóge ci rakki sëñ bi mu ne ko doomi boppam itam sëñ bi daf leen jàngal bañ xam li ñu war a xam te xam nañ li lislaam wax ci mag ju góor lislaam li mu jàngale daf ne soo demee ba gis na juru góor sa mag ju góor moom ngay jox sa wàcc waayu waajur wu góor mooy doon sa kilifa mu ne nag ñoom xam nañ loolu te xam nañ Cheikh Mamadou Moussa moo leen mag kon danañ ko topp kon xëccoo mënta jógee ci biir njabootu sëñ bi mu ne ko nag mu des ñun bokki taalibe yi mu ne ko ñun bokki taalibe yi nag ñaari mbir dong moo mën a am benn njaboot gi fi sëñ bàyyi dañuy jaar fi leen sëñ bi jaarloo woon te jàpp nañu loolu lañuy def boobaa daañu leen topp wala ñu ñàkk faa jaar te jàpp nañu duñ ko def boobaa daañu leen topp ngir wormaal sëñ wuutee mënta am nga xam ne kon taxawaay boobu la am ci gannaaw sëñ bi ba xilaaf ak Cheikh Mamadou Moustapha dal di taxaw loolu boo demee ci marché bi sëñ Moussa Ka def ci moom dana lay wax jéego yi nga xam def na ko ci ba ñu waroon a ji yeeslu ñëpp ci Cheikh Mamadou Moustapha ñëw yeeslu ci moom xilaaf ak Cheikh Mamadou Moustapha daal di tàmbali mu taxoog Cheikh Mamadou Moustapha nag ci di ko laaye biir di waxtaan ak moom sëñ Mamadou Moustapha tam doyloo woon ko lool ci wàllu xel ak xalaat ak di diisoo moom mag nettali nañu ne Cheikh Amadou Moustapha Dey nee na ko Cheikh Amadou Moustapha Dey bi ko sëñ bi wanee gannaaw moom ba ni mu fi jógee ci 1945 nee na amul lenn lu mu def mbaa mu wax ko lu dul da cee diisoo ak sëñ Mbàkke ba noppi nee na lépp lu muy def balaa caa wax wala mu def ca dana ci diisoo ak sëñ Mbàkke ba sëñ Mbàkke jox ko ci xalaat loolu mag mu tax mu xam Cheikh Amadou Moustapha moo ñu ko nettali ñu gis it ne Cheikh Amadou Moustapha bi mu sosee diwaanul Mouridine joxoon na ci sëñ Mbàkke ñaari wàccuwaay muy moom la féetale woon lépp luy wàllu xam-xam waaye itam wax nañu lépp lu jëm ci wàllu saytu alal ji ci loxoom la ko tegoon kon seen diggante ñoom ñaar diggante bu sori la woon Cheikh Amadou Moustapha doy la woon ko lool moom it mu doy la woon Cheikh Amadou Moustapha jàppe woon ko tam muy jëmmi Serigne Touba te war a sàmm noonu Serigne Touba moo tax mu ànd ak Cheikh Amadou Moustapha ba Serigne Modou Moustapha wàccu liggéey ci 1945 Cheikh Mamadou Fadi daal di ñëw wax nañu nag bi Cheikh Mamadou Fadi ñëwee nag ba toog ba installé wu ba amuk dal ci la wax ne sama mission de jeex na ci atum 1946 mu daal di wàcc liggéey Sëñ Modou Fati daal koy taxaw denc ko fii ci Guédé ku nekk xam ne diggam ak Sëñ Fallu nag moom defe naa ne ñu baree bari xam nañ ko li ñu bokk ak ak fi mu farek moom ci lépp defe naa ne xam nañ ko mu amoon tam nag relation bu dëgër ak njaboot Sëñ Tuubaa gépp ñenn ñi moo leen jàngal toppatoo leen taxawu leen ñenn ñi tam mu àndoon ak ñoom ci di leen gunge ci fànnu xam-xam ak ci fànnu laayante biir nga xam ne wax nañ ne këram mas naa lakk jamonoy sëñ bi kër gi yëpp lakk wax nañu sëñ bi sëñ Modou Moustapha ak sëñ Bassirou ak sëñ Fallou ñoom la yebal ne sëñ Modou Moustapha boo demee yow fu am néeg nekkoon na ko fa delloo daal ne sëñ Fallou fu ab lal nekkoon na ko fa delloo daal ne sëñ Bassirou fu ab téere nekkoon na ko fa delloo daal ne nag sëñ Mbàkke ku ko liggéeyee ñeenti fay ngay am yàlla dana la fay ma fay la yonente bi fay la sëñ Mbàkke fay la mu ne kon ñeenti fay moom ngay boole loola bañ ko defee ba noppi sëñ Mbàkke dajaa def xasida goo xam ne nii xasida yàlla def na mi ngi fi ba léegi muy lu ñu mën a xool di ko gis kon ñoom foofu la féetoo ñoom ànd ak ñoom taxoog ñoom ci fànn googu ba wane leen gannaaw moo tax sëñ Fallu ci fonk gum ko fonkoon nee nañ daana wax ne fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom bi mu ko wootee ñëpp di ko def see Touba ci atum nee nañ daan na wax ne képp ku ñëw Touba te demoo Gédé ziyaare ji Sëñ Mbàkke so nee na yaa ngi mel ne ku dem Màkka te demoo Madina moo tax mag ñi ko fekkee wax nañ ne jamono yooyu nit ñi njooxee lañ daan def di bàggante diggante barab bi ak barab ba da ca Gédé ngir di wéyal ndigalul Cheikh Mamadou Fadil Sëñ Abdou Khadir ku nekk xam na ne ci moom la ne woon ba ni mu sancee këram gii ci sura door faa jóge ñëw ci këram gii ci jumaa ji moom daan wax ne barabu suñ mbàkkee bii day lu fi waaye ñaan bu nanguwul sa pëstéef moo des kon ñoom noonu la séqe woon ñoom taxawu leen ci fànn googu ñoom it ñu doyloo woon ko lool lool lool noonu tam nag la amee relation ak magi taalibe yi nga xam ne ñoom la séqaloon Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñoom it ñu woon ko moom it mu doyloo woon leen lool daan leen ko ci nag saa su nekk di waxtaan ak ñoom ci lu baree bëri tàmbalee ko ci maam Cheikh Ibrahima ba ci ñi ci mujj yëpp relation bu mel noonu la amoon ak ñoom xëy na benn benn murid yi ci ni ñuy gisee maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Mbàkke Bousso ci na ci wuute wuute ni ñuy dundee sëñ bi jàpp na ñoom ñaar mënuñ woon a jëflante waaye relation bu am solo lañ séqoon bu dëgër sax ba maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu fi jógee ci atum 1930 wala 31 defal na ko marché boo xam ci ndigal sëñ Mbàkke Bousso la boobu sëñ Mbàkke Bousso ngi dund boobu wax na ci wax yu am solo seere yu am solo yu def ci maam Cheikh Ibrahima Fall walal kiraamu waale daa wa asafi nangam yu mel noonu ne maanaam ñu baax ñi dem nañ yu mel noonu la koy firee di ci wax wax ju seer yu am solo ci digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall kon seen diggante ñoom bokkuñu woon nañu doon dundee sëñ bi loolu wér na waaye nag joxante woon nañ cër lool lool lool. noonu dam la ko séq nag mañ ci des si ndaam Abdourahmane loo yàlla def na dañoo am ak mbokk ci wàllu deret ndax ci wàllu cekkeen bi am nañ ci bokk gu jege lool sax waaye itam ku nekk xam na ne ñoom ñaar dañoo bokkoon nekk fii ci daaru alimul xabir sëñ ndaam nekk ndaam sëñ mbàkke nekk mbusoo bi ci lasal wax nañ ne bi mu fiy jógee la ko sëñ ndaam ne ko dangay ngay yóbbaale yar maanaam yari yoon yi da nga koy yóbbaale gede moo tax yari yoon yi niñ ko daan dóore foofu ba léegi gede jam ba daje jamono ñu waxtaan ak yéen nii képp ku fa ñëw te sàkk ñu dóor la géttan boo ñëwee ñu defal la ko téeméer yar yi nga xam ne ñu dóor koo xam da ngaa joteeg sa moroom te sequ leen ab sëy te teñ war laa teg yar yoon yooyu ba léegi ñoo ngi koy def ci gele seq guñ seqoon tam moo taxoon ñu doyloo woon te woon lool lool boo xoolee suñ Moodu Buso mi njëkk a suñ Mbàkke Buso taawam bi mu gënee àdduna wala bokk ki ñi mag ci ay doomam kenn ki mag ci ay nga xam moo ko njëkk a wuutu bi mu gënee àdduna sëñ Daam Abdourahmane Lo lañ ko duppee moom moo ñëw ko wuutu suñ Moodu Buso di xalifa suñ Mbàkke Buso wax nañ ne am na jamono suñ mbàkke bi mu nekkee ci tër bi ba mbokk yi ba doo njaboot gi jaaxle ci lool wax nañu suñ Moodu yable na suñ daam Abdourahmane ngir mu def ay ñaan nee na bi mu ñëwee suñ daam ne ko yéen da ngeen gaaw a tiit waaye bu leen tiit ndax suñ mbàkke suñ Tuubaa waxoon nañ ñun ñëpp moo ñuy taxaw te man mii man waajagum kon dem leen na seen xel dal dara du xew kon noonu dafa nekk suñ daam Abdourahmane Lo ba suñ daam Abdourahmane wàcc liggéey mu taxaw noonu tam la taxawoo suñ jéeri waa daan sug nga xam wax nañ bi mu koy taxaw siñ Tuubaa yebal ko mu dem taxawu ko wax nañu bi mu dellusee Sëñ Tuubaa def ko ndax gis nga sa bàjjan mu ne ko ñun de amuñ bët yu mel noonu Mbàkke mu ne ko ndax Sëñ Jéeri doon dafa fonkoon soxna maam jaara ba doom ju mu am muy jigéen moom la koy tudde moo tax soxna maam jaara mi ngi woon sàppe si bi ñuy taxaw Sëñ Jéeri Waadoon moom Sëñ Daaru Asan Njaay moom it Sëñ Tuubaa moo leen boole woon ba Sëñ Daaru Asan Njaay bi mu wàccee liggéey moom itam Sëñ Tuubaa Sëñ Mbàkke bu solo yebal mu dem taxawal ko ba ci Sëñ Masamba Jóob ak ñeneen ñoo xam ne ni mag ñu baree bari nga xam ne nii Sëñ Mbàkke moo leen taxawu ci fànn googu wax nañ tam ne bi muy laata génn àdduna bi mu demee ba xam ne mi ngi catul dundam def na turne bu mag wër mbokki taalibe yi mag yëpp kër gu nekk wax nañu bu demee lam lay wax danaan la man kat damay bëgg a dem ci tukki boo xam ne nii wax lu du dëgg dafa amut ma bëgg a ñëw ne ku nekk ma xool ni nga nekke ak ni nga tooge ba bu ma demee bu ñu ma laajee ma mën a tont xam li may tontu noonu la def tàggatoo ak mbokki taalibe yëpp. door a laxas dellu ci boroomam kon noonu la amoon nag bokki taalibe yëpp tam jàmm ak salaam gis nañ suñu Omar Diop mu Mbàkke ay bayit yoo xam ne nii séq na kook sëñ Mbàkke Buso sëñ Mbàkke Buso def ko ci moom muy ñaari bayit yoo xam ne turu suñu Omar la jël def ci ay bayit sëñ Masamba Faati jël sant suñu Omar muy Diop def ci ay bayit loolu lépp seer la soo xam ne nii séqoon na kook magi taalibe yi noonu tam la séqi woon ak magi julit boroom xam-xam yi kilifa yi diine yi nga xam ne nii ñoom la jamonoon tëral waxoon nañ léegi ne la sëñ Mbàkke bi sëñ bi jógee mi ngi woon fi ñuy wax kër sërif nekk digg mag Tiwaawan nekk juróom-ñaari kilomètre foofu la séq woon kóllëre gu yaatu ak sëñ alhaaji Malick si donte bokk nañ ci wàllu deret tam nag waaye na seen kóllëre foofu la gën a dëgëre ba wax nañu alaaji sëñ maam suñ maam alaaji Malick si daana wax ne moom de bu xamutoon sëñ Tuubaa bu xamutoon dara waaye suñ Mbàkke Buso mi nga xam ne xam na ko moom ak li mu xam ci moom ci xam-xam ak ragal yàlla xam na ne képp kum topp sa gannaaw kooku ku doy nga seere sot la defoon ci moom bi fi alaaji Malick si wàccee liggéey ci atum 1922 bokk ak Seydi Ablaye alaaji Ablaye Niass mel na ñu wàccee liggéey suñ Mbàkke defal na leen marsiya boo xam ne ni mi ngi fi ba léegi ci la doon waxee ne samsun wa samsun ama samsin xaabata fa bakal wara li takaadu fil adlaami noonu la ko toppee moom tam defal leen marché bu am solo la ko jiitu defoon na ñoom ay bayit yoo xam bañ jógee màkka defaloon ay bayit yoo xam ne nii doon ci waxtaan ak ñoom kon seqoon ak ñoom ay relation yu am solo noonu tam la ko seq alaaj Ablaye Niass bu alaaj Ablaye Cissé bu jaamal alaaj Ablaye Cissé bu jaamal sax tuddee woon na Sëñ bàkkee doom joo xam dem na ba nekk xalifatu jaamal bi mu jógee sax yàggewul noonu nag nga xam ne loolu tam waa jaamal ñu ngi dox kondare googu ba léegi du ko séq ak waa njabootu Sëñ Mbàkke bu ba ci alaay Ibrahima Niass mi nga xam ne sax moom ci ak ay doomam lay maaseel gis nañ lettre boo xam ne nii bindoon nag ko moom doon ko am yi mu ko doon laaj Sëñ Mbàkke tontu ko ci ab lettre di ko ci xamal ay maama ak cosaan ak yu mel noonu loolu itam seqoon na ko alaaj Ibrahima Niass bu kaw la kon ku amoon relation la ak ñi nga xam ñoom la seqaloon diine ji ci jamono ñu daan joxalante ak ñoom loolu nag déggum déggoon sëñ moo ko mayoon ndax sëñ bi xam na ne pas-pasam ci sëñ bi la newoon waaye nag pas-pasam ci diggam ak sëñ bi du tax du tee mu dox mbokku jullit gi nga xamoon la seq ak yeneen mbokki jullit yi kon noonu la def moom itam seq ko ñoom seqoon ko sax ba ci boroom xam-xam yi nga xam ne nii ñoo ne ca bitim réew rawat na suñu mbokki naaru gànnaar yi nga xam ne relation yu sore sori yu xóot a xóot la seqoon ak ñoom ci wàllu xam-xam gis nañ loo xam ne nii moo ko bind Cheikh Sidiya Baba ki doon bind biographie seen Cheikh Sidiya Baba bi mu ko bindee ba noppi sëñ Mbàkke da caa bindaat lu xët yoo xam ne nii di ko ci jubanti lu baree bari ci kan mooy Cheikh Sidiya fi ñu cosaan ci Cheikh Sidiya mu mag ma ba ci Cheikh Sidiya baaba mi nga xam moom mu jaxam loolu bi ñu demee buti limit ci gànnaar nga xam ne dañ faa dem ci délégation am gag boo xam dañ koo gag ñun ndax dañoo wax ne siñ siñ Mbàkke dafa wax ne Cheikh Sidiya Cheikh Sidi Maxtaar Kunti benn benn doom la bàyyi Mouhamadul Xalifi benn doom boobu rek la bàyyi léegi nag ñu jàppoon na ñun Cheikh Sidiya mii ñu xam dafa dafa am ak moom njaboot na ñu jàpp na ne kon loolu mu xawoon lënt ñu ne biñ ko gëstoon la ñu xam ne kon ndeke Cheikh mu mag ma moom moo am benn doom bu tudd Mouhamadul xalifa Mouhamadul Khalifa mu am ñaari doom benn bi Cheikh Sidiya baaba benn bi tuddoon Sidi Muxtaar ñoom ñaar nag ñoo meññi njabootu Boutou limit gi nga xam ne ñoo fi des loolu suñ Mbàkke moo ko leeral ci ay bindam. ñu gis ay correspondance yu baree bari yoo xam ne nii daan na ko séq ak Cheikh Sidiya Baba ak ay xasiida yoo xam ne nii daan nañ ko jokkalante ba bi Cheikh Sidiya Baba wàcceeb liggéey sax lettre njaal bi sëñ bi bindoon doon jaale njabootu Cheikh Sidiya baaba sëñ Mbàkke moo ko bind te yàlla def na tam moom la ko sëñ bi yóbbu yónni woon mu yóbbu ko gànnaar yóbbu ko njaboot bi kon diggam ak ñooñu dem diggante bu sori la woon ak boroom xam-xam yi nekkoon gànnaar tam am na téere boo xam ne nii gis nañ ko mu tudd tawaari bëppa tawaari bëppa benn naaru gànnaar moo ko taalif ci siiras yonent bi alayhi salaam waaye sëñ Mbàkke moo ko sara sara bu naññi boo xam ne nii ba léegi itam téere booba mi ngi fi njaboot gi yor ko ak yeneen bind yoo xam te ni gis nañ ay naari gànnaar di ko seere ci moom ku mel ne Abdul ah, Muhammad ak ku mel ak kum lii ak ñeneen ñoo xam ne ni def nañ ay seere yu am solo ci sëñ Mbàkke loolu itam mi ngi fi ku ko soxla da nga ciy mën a dellu kon noonu la seqoon ak boroom xam-xam yi ba ci boroom xam-xam yi xijaas yi xam nga ne bi mu demee Màkka ci atum 1928 ci la sof ay relation yu am solo yoo xam seqoon na ko boroom xam yooyu ba sax képp ku daan dem màkk ci jamonoom daan la bindal ay recommandation boole laak ñi nga xam ñoo féete foofu sëñ Mor Faty Touré bi muy dem màkk lettre bam recommandation bi mu ko defaloon loola mi ngi fi ba tey nit ñi mën cee teg bët kon ku ubbi la woon ci àdduna bi yëpp am ak ñëpp ay relation yu am solo kon noonu la ko séqe woon nag ñooñu séqoon ko tam nag ak Sénégal gépp Sénégal yitteeloon ko lool nag lépp lu fiy xew muy lu ñu war a jubbanti mu war caa yëkkati kàddu dana ci yëkkati kàddu wax ca lam jorox bu ñu defee baax na bu ñu defu tam moom jaanam wàcc noonu lañ gisee lettre boo xam bindoon na ko ci teeñ tanoor ba muy sonal bokki taalibe yi lettre bu am solo la ko suñ mbàkke bind di ko wax ñi mu amal affaire ñan lañ ak di ko ci tëkku ne ko bu bàyyiwoon ni ngay doxee nangam ak nangam moo la ciy fekk noonu da la bindoon lettre ouverte ci jamono yu ngalandu biñ ko falee di ko jël fàttali moom itam warteefam diggam ak njaboot gi waaye warteefam diggam ak réew mi waaye itam ñi nga xam ñoo ko fal tam ban warteef lañ séq ak moom loolu tam doon na ko yitte dafay tegtal ni kon réew mi yàgg na koo ñor ndax ba muy wax ayyuha Sénégal yi yun di wax yéen Sénégal yi boobu Sénégal indépendance amagutoon kon moom réew mi yàgg na koo ñor ci fànn yooyu kon noonu la dundee ci biir njaboot gi dund ko tam ci biir bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ba suñu borom moom ko ci atum 1946 mu am nag réalisation yu am solo yoo xam ne nii def na ko ñu mën koo def ñaari xaaj yan yi dafay jëm ci wàllu xam-xam lim bind ci wàllu xam-xam muy mbind yu bare bare yoo xam ne nii sëñ Modou Bousso wax na ne sëñ Mbàkke daana wax ci lu mat ñaar fukki fànn ci xeeti xam-xam te fànn ku ci yi ci bari nag ay mbind yu ci bind bàyyi fi mi ngi fi muy téere yoo xam ne nii manis na caa dellu xam-xam yu raar tam yoo xam ne ni daan na ci gës di ci bind ba ci wàllu mathématique wàllu yooyu géométrie yëpp da gis ne am na lu mu ci bind ci ay bayit yëm ci def ci xam-xam boobu kon xam-xamam yaatu woon na yaatu goo xam ne nii ñu baree bari war nañ cee mën a jariñu waaye xam-xam bi nga xam ne ci la gën a def ay invention yu am solo yoo xam mi ngi fi moom ba léegi mooy xam-xamu fëlëk mooy astrologie wala astronomie nga xam ne moom def nañ ci ay gëstu yu xóot yoo xam ne nii moom kenn jiituwu ko ci nga xam ne bu ñu doon sos dañ naan moo ko sos bokk na ci loolu lu mel ne ni ñuy natte boo nekkee Touba ci Sénégal tuubaa te mën koo baaxal ci yeneen gox yi nga xam def nañ gëstu yu xóot ndax wax na bi mu demee Màkka ci la gëstu ba xam bis bi nga xam ne ni jant bi day tiim kaaba gi bu njolloor jotee muy li wax mu saamata gëstu na ko Màkka ba xam bis bi bi mu dellusee Touba tam gëstuwaat na ba xam bis boobu nga xam ne nii bu agsee moom maanaam bu nit bu njolloor jotee ker dootu am mu nga xam ne mooy mu saamata nga xam ci la ñuy sukkandiku bay natt xibla ci ker yi loolu mu def ci gëstu bu xóotu xóot boo xam moom tam bind na ko bàyyi fi ba njaboot gu baree bari di ci sukkandiku di ci natt xibla waaye tam mu liggéey ci ci waxtu julli nga xam ne tey képp koo gis muy gëstu ci waxtu julli bu ko waxee ak bu ko waxul jàppal ne am na loo xam ne nii bor boo amee na ko Sëñ Mbàkke ndax mbokk na ci ñi ko njëkk a def fii ci senegal muy montre boo xam ne nii bant la bu muy samp ci suuf bu kër gi tolloo nangam mu xam ne heure sàngam moo jot mu réglé ci montaram boole ko beneen téere boo xam ne mënut a yawaaqitu salaat fii aw awqaati salaat nga xam téere boo xam ne suñu mbàkk gis na ko fanweeri at ak ñett fanweeri at ak ñett yooyu itam du dat bu tombee nii rek ndax xam ngeen ni atum tubaab bi day nekk juróom ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukk ak juróom léeg-léeg mu nekk juróom benn fukk ak juróom benn atum jullit yi day nekk ñetti téeméeri fan ak juróom fukk ak ñeent kon ñoom dañuy rawante fukki fan ak benn ñu ne fukki fan yooyu ak benn yu ñu rawante nag fanweeri weer ak ñett yu nekk weeru tam xarit dana teru ñaari yoon ci biir atum tubaab bi nga xam loolu fanweeri at ak yu nekk lay am li ñu kon mooy biir fanweeri at ak ñett defee kon day xam ne kon bis yi nekk ci at mi yëpp bu ci nekk xam ne bis bi ban lay jant ban heure lay fenk waaye itam xam ne ban heure lay soog mu noté ko ci loolu ci la sukkandiku ba defar téeréem boobu nga xam ne fii ba àddinay tukki moom dañ koy mën di jëfandikoo xëy na liggéey bi ñu ci liggéey weesuwul convertir ko ba man koo def temps universel ba mbokk yi gën koo mën a jëfandikoo loolu rek mooy liggéey bi ñu ci yokk waaye moom fii ba àddinay tukki du soppi ko téere boobu nag ci lañuy sukkandiku bay tefar waxtu yi julli yi di ko ci xam waxtu yi dokkoor yi waxtu yi ñuy jàpp waxtu wi jant bi fenk waxtu wi jant bi so waxtu safaq yooyu ci téere boobu ci la ñuy sukkandiku ba xam ko muy liggéey bu réeree boo xam defal na ko lislaam defal ko jullit yëpp ci wàllu xam-xam noonu tam la taalife ci wàllu fiq noonu la taalife ci wàllu tasawuf loolu la taalife ci wàllu wàllu tawxiid loolu la taalife ci wàllu ulumul quran noonu la taalife ci wàllu mathématique noonu la taalife ci wàllu géométrie ak yeneen domaines yoo xam ne nii wax na ci noonu tam la taalife ci wàllum sociologie te mooy dundin askan wi def ci loo xam ne relation sociale yi nu ñuy fexe ba mën koo sàmm bu bu yàqoo nuñ koy defare nuñ koy sàmmee du yàqu loolu mu bind ci ay téere yoo xam ne nii ku ci bëgg a dellu mën nga caa dellu kon ci wàllu xam-xam liggéey na ci liggéey bu yaatu boo xam ne ni moom it mi ngi fi ku ca bëgg dellu mën caa dellu waaye itam noonu la fonke woon itam liggéey ñaq ngir mën a faj ay soxlaam xam ngeen ne talabul xalaal sàkku farata la ci ab jullit bu nekk ni ko sëriñ ci war a di laanu waxe moo tax suñ mbàkk itam noonu mu yittee woon ci wàllu jàng ak jàngale ak yar noonu la yittee woon ci wàllu liggéey ba mën a fàggu lew booba mbay moo xew liggéeyu mbay moo am daana ci def lu am solo sanc ay dëkk yu baree bari yoo xam la taxoon mu sanc ko mooy di fa liggéey lu mën a jaamoo yàlla waaye itam di fa yar njaboot bi ci la sance woon daarul maraam booy xool digg ma gere nangami kilomètre la ci la sance woon daaru sakkoor ci la sance woon xadaayiqul fadail ci la sance woon fi ñuy wax nayde ci la sance woon fi ñuy wax lasar ak dëkk yooyu ba ci misira gi ngay gis bi ko maam Mor Diarra di sanc ci atum 1912 wax nañu dafa woo sëñ Mbàkke ba mu ñëw mu ne ko da ngay tàmbalee jëm nii man ma tàmbalee jëm nii moo tax foofu moom it am na fa sanc boo xam ne nii jaboot gi sant Seck ñoom dafa dëloon ñu ne fa ba jamonoy tey jii ñoom ñaa fa fare kon barab yooyu barab yi jaamukaay yàlla la ko defoon doon ci liggéey di ci bay waaye itam dafa yar njaboot gi ànd kook nag ak bokki taaliba yoo xam ne nii Serigne Touba radiyallahu anhu moo ko boole woon ak ñoom ñuy magi taalibe yoo xam ne ni dañu ko doyloo woon doxale ko seen digganteeg sëñ bi mu nekk seen jëwriñ ci yoonu sëñ bi ñu mën caatul ku mel ne sëñ Mbay Seck moom moo xam léegi man caatul ku ne Serigne Galaay Sarr dëkk Cump Sarr man caatul ku mel ne Serigne Modou Fall dëkk ca Xombal Kër Farang man caatul ku mel ne Serigne Dame Lay dëkk ci Pire ci wetu Tiwaawan man caatul ku mel ne Serigne Goudakan dëkk Bawal ci Gelor ak man caatal ku mel ne Serigne Ousmane Kandji dëkkoon fi ñuy wax seew ci Bawol ak yeneen magi taaliba yoo xam ne nii yàlla boole woon na ko ak moom ñu ànd ak ñoom di liggéey kon noonu la doxale foofu ba xëy wàccub liggéey xëy na kon fi ñuy daaneel kàddu gi nag mooy wax tuuti ci diggam ak barab bi ñu nekk mooy jumaa ji jumaa ji xam ngeen ne waxoon naa léegi ne sëñ ba sëñ bi moo santoon sëñ moo santoon sëñ Mbàkke ne ko da ngay dem ba Touba nga sanc ci gà gànnaaru Touba nangami miil bu ko defee bu naal bi àggee nga mën di ko taxaw booba sëñ bi am na yéene taxawal jumaay Touba kon bokk na ci ñi sëñ bi njëkk a waxal ci jumaay Touba buñ demee ci li sëñ Maxtaar Bindaloo bind nga xam ne nee na 1925 tolloog 1344 ci la sëñ bi njëkk a woote di wax ci jumaa ji nee na juróomi nit ñi mu woowoon muy Maam Thierno borom Darou Mouhty muy Cheikh Mouhamadul Moustapha muy sëñ Balla Coro ak sëñ Mbàkke Bousso ak ma sàmba Mbàkke juróom yii la sëñ bi woo ne leen wax leen liggéeyub jumaay Tuubaa ak ni mu ko bëgge nett lañ naan tam na ngeen ba ca noppee nag dafa wax sëñ Mawlaay Bousso doomi sëñ Mbàkke Bousso boo fekk na moom mi ngi woon ci biir kër sëñ bi mu yónni ko sëñ Mbàkke ne ko nag boo demee ne ko na bind leetar ki fi nekkal tubaab bi ngir ñu laaj ko autorisation ngir mën a wëyal liggéey bi sëñ Mbàkke daal di bind leetar boobu defe naa ne mi ngi ngeen exposé fii nga xam ne si mbàkkee ku bind ci ndigalu sëñ bi ba mu noppee sëñ bi daal di ci suuf daal di bind mustaktibu haadihi al huruf ak lam ca teg wax nañ ne sëñ Mulaay nee na ba autorisation bi génnee rek daf ko ko daal di joxaat ne ko demal wan ko sa baay mbàkke ne ko la ma doon sàkk mi ngi nii sëñ bi nag ne ko yow li ma la ci sase mooy mu jublu xibla moo tax sëñ mbàkket liggéey ci liggéey bu am solo ci fexe ba natt ko ba nga xam ne jumaa ji tey moom jumaa ji jublu xibla bu ñu koy waxtaanee waxtaane jumaay Tuubaa moo tax ndax xam ngeen ni xibla am na jihatul xibla ak aynul xibla aynul kaaba jihatul xibla mooy jumaa joo xam dana jublu xibla nii rek dana xubli nii waaye aynul kaaba mooy jumaa joo xam danaan màkk ci kaaba loolu nag xibla jumaay Tuubaa jii moom defe naa ni technologie yu bees yi boo ko ci tegee dangay gis ni mu lay defalee rëdd ba mu def direct ci kaaba gi nga xam ne daf ne màkk ci kaaba gi moom dàkkul kaaba gi kon loolu liggéey la boo xam suñu bàkki moo ko liggéey ci biir jumaa ji yàlla defi nag liggéey bi ñuy saytu ci biir jumaa ji mu am ci taxawaay yu am solo ci ni ñu ko xame ndax xëy na yéene ji sëñ bak sëñ bi amoon ci mu koy taxawul liggéey bi moo tax tey ñuy yëngu ci biir jumaa ji Tuubaa ñëpp mën na noo wax ne am na lu leen lëkkale ak sëñ Mbàkke Buso ci wàllu ay fànn waaye itam yàlla def na nag ba jamono ji ñu wax ni ki fiy jiite jumaa ajjuma ji bokk ci ay sëtam direct nga xam sëñ Moodu Buso mi njëkk a nekk taawam mooy waajuram muy sëñ Mouhamadou Mamoun Buso ñaan suñu borom yàggal ko kon amoon na taxawaay bu am solo ci biir jumaay Tuubaa yi kon daal ci tënk xam naa ne bu fekkee laaj na ñu dellusiwaat ci ci yeneen ñu dellusiwaat ci waaye daal bu ñu bëggoon tënk tund ak suñu Mbàkke daal noonu la deme mu nekkoon jàmbaar joo xam ne nag ñëpp a ko doyloo woon waaye itam jàmbaar ju xamoon boppam nag xamit li sëñ bi def ci moom ba tax daawul foye boppam daawul nangu tam nag ku ko woyafal daawul nangu tam nag ku ko desal gannaaw nga xam ne waaye itam fu la jëkk fayda jëm matoon na sëkk moo tax wax nañu bi mu nekkee ci tawat ji maanaam bi mu nekkee ci tëraay bi nga xam ni ngi bëgg a wujji boroomam am na menn mag mu ñëw xam naa yërëm ko ci tëraay bi daal ne ko am ah, man de suñu wax dëgg yàlla ni nga ragale yàlla ak ni nga baaxee sa tëraay bii ni mu yàgge daal am naa ci jaaxle waaye nañ suñu mbàkkee dafa yëkkati loxoom ba mu kawe mu ne ko tabax bu la gën a dëgër moo lay gën a jafee toj kon noonu la doy la woon ba xam xam xam boppam xam mooy kan mën a mesurer boobu mooy lu jikko ju am solo joo xam ne nii ñu ngi wàcce kàddu gi foofu di sant di gërëm di santi mbooloo mi nga xam ne lañu àndal jógee Gédé ñu bokk ci njaboot gi ñëw teewu jotaay bi ngir jëmmal ko di leen jot nag nuyoo ak cant gu jógee ci njaboot suñu Mbàkke Bousso gépp ci jëf ju ji nga xam def ngeen ko te mooy jagleel ko ab jotaay ci exposition bi nga xam ne yéen a koy def waaye itam gaaral lenn ci ay liggéeyam ngir rek ñi fiy ñëw te di ko gis xam ne maanaam ab junj la rek. ci liggéey bu mag bi nga xam ne ni suñ Mbàkke def na ko tey ñi bëgg a def ay thèse doctorat wala bëgg a def ay mémoire master wala yu mel noonu bunt a ngi noonu boo xam ne nii maanaam matière première la boo xam ne ni ku ci bëgg a mën nga cee bind thèse mën nga ci bind ay mémoire te it yàlla def na nag am na benn benn yu bare bari yoo xam bind nañ seen thèse doctorat ñiy bind seen mémoire master muy kon bunt bu ubbi ko boo xam ne nii buntu bu gës daal gi noonu ñu ci soññ nag borom xam yëpp di ci muñandiku wasalaamaaleykum wa rahmatullah loolu ci waxtaan bu am solo wi niñ ko waxe woon ci bi ñuy tàmbali rek euh, sëriñ Mbàkke mi ñu doon waxtaanee day géej goo xam ne luñ ci tànk rek day daal di luñ ci am rek day daal doy moo tax ñu waxoon ne dañuy ab tënk la doon ci ak dundam rek mu ne su na matal lépp mu mel niñ ko tënkee woon ci ndorteel waxtaan wi sëriñ bi ñëwal nañu ci sëriñ Mbàkke fan la ganee jamono ak ban at la woon mu mi ngi ganee jamono ci Mbusobe Jolof ci atum 1864 leeral ñu tamit eh, ab taxawaayam ak fonkam gu fonkoon wàllu askan tax na mu eh, sëriñ bi ci ndootal waxtaanam leeral nañu ne sëriñ Mbàkke ku sonnoon la ci nit ñu war a binde sant wi di mbusoobe ci mbusoobe ci wane ne ñu ngi ko war a binde ci baa ak siin leeral nañu tamit ci loolu tamit leeral nañu ñan ñooy ay waay juróom mu nekk ci diggante sëriñ mbusoobe ak soxna Faati Balla al Kubra noonu la ñëwale tamit ci am njàngam mu dale ci diggante eh, waajuram sëriñ bu soobee jaar ci sëriñ Touba nga xam ne fépp mu jaaraat rek ci ndigalam la jaara ci sëriñ bi daal ñuy ñëwal nag ci relation yi nga xam ne amoon na ko digganteem ak sëriñ bi te ñu mëntaa tënk rek ne bokk na ci njëkkante jaayante ak njëkkante jaayante ak sëriñ bi bokk na ci juróom ñi nga xam ñoo njëkk jaayante ak sëriñ bi radiyallahu anhu ci la ko sëriñ bi tarbiya yarub yarub sufiyanke boo xam ne jeexate na ci moom ba ñi ko xamoon xam nañ ne jeex def na jeexit bu rëy rëy ci moom naka ne sëriñ bi ko comme doyloo la woon la daan diisoo ak moom ci lu bare bare ngir am xelam mu yaatu ak ak xam-xamam bu bu yaatu da wóolu woon ko ci lu bare bare tamit daan ko euh, ci tam doy ci dëkk sëkkëre bu ñu tuddee ne moom la digaloon santoon nga bu bu fi euh, wuyu jee boroomam mu taxaw ginnaawam te mu taxawaay taxawaay bu rafet nu nga ko waxee ci dalal mbokki taalibe yi am ba taxaw sëriñ bi ba ginnaawam dara yàquwul naka noonee loolu la junjalee ci ginnaaw sëriñ bi ni mu ci sëñ sëñ Mbàkke woon ci fexe woon na ba kenn ku ne mu xam ban nga war a suyee ginnaaw sëriñ bi leeral ginnaaw ginnaawam ba lépp lu ñu doon tiit ci jamono joojee amul ba Cheikh Mouhamadou Moussa euh, manees naa wax na sëriñ Mbàkke moo ko samp mu nekk premier xalifa sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu naka noonee la ñuy sëriñ bi leeral la tamit ne relation bi amoon diggante sëriñ bi noonu la am noonu la dëgëre woon tamit diggante ak njaboot sëriñ bi ñu ca noté li ci wax rek mooy relation bi amoon diggante ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mu wax ne sëriñ Moustapha daana ko diisoo ci lépp daanaka mësul dugg ci menn mbir lu may waxtaan na ak sëriñ Mbàkke loolu day wane kon relation bu dëgër bu doxoon seen diggante naka noonee tamit noonu la dëgëre woon ci mbooleem njabootu sëriñ bi rawatina Cheikh Modou Fata ak Cheikh Abdoul Khadir naka noonee tamit la wax ne sëriñ bi daana ak relation am tamit sëñ Mbàkke noonu la dëgëre woon diggante mag euh, magi taalibe yi nga xam ñoom la bokkaloon doon euh, ci nekkoon ci ron keppaaru Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mu nekkoon euh, relation yu dëgër tudd na ci nag relation bi diggante mag Cheikh Ibra maam Cheikh Ibrahima Fall ak Sëriñ Daam Abdourahmane Lo muy firnde rek dëgëraayu relation yi doxoon digganteem ak magi taalibe yi waaye naka noonu tamit Sëriñ Mbàkke noonu la amoon relation bu dëgër ak mboolem nga xam ne ñoom la jamonteen ci ay borom xam-xam nekkoon ci biir Sénégal ñu mën caa tudd ku mel ne sëriñ Alxaaji Malick si ak sëriñ Abdoulaye Cissé Jaamal ak sëriñ Abdoulaye Niass ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la jamonteel nekkoon ci biir Sénégal waaye tamit ay borom xam yoo xam nekku ñoom biir Sénégal ñu gën fes nag borom xam-xam yi xam ñoo nekkoon ci Murtani ak ñi nekkoon fële ca Xijaas ginnaaw bi nga xam ne ajana màkk naka ñoo ne sëriñ bi laaral nañu lenn ci ay taalif ay téere yoo xam ne sëriñ Mbàkke taalif na ko mu ñu mën koo tënk nañ ci ne daana taalif ci ay xam-xam yu wuute yu baree bare waaye nag yi ci gën a fes mooy xam-xamu fëlëg muy eh, xam-xam bi jëm ci wàllu fëlëg ak naka la ñuy jubalee xibla muy loo xam ne ràññiku na ci lool ak na ñuy xam loo xamale tamit waxtu yi waxtu yu julli yi naka noonu taarif na ci yeneen xam lu ma nekk fiq ak tasawuf ak yeneen yu baree bare ni ñu ko waxee ci eh, ginnaaw léegi waaye noonee mu taalifee tamit ci wàllu bind ci xam-xam noonu na tamit la fonke woon wàllu fàggalu lew taxoon na mu sanc ay bërëb yu wuute wuute te bërëb yi yëpp la ko la ko tax a rek mooy di fa liggéey ngir mën a fàggaloo lu muy euh, dunde naka noonu tamit léegi sëriñ bi tëjale waxtaan wi ci leeral ñu taxawaay yu rafet yi nga xam ne amoon na ko ci euh, jumaa ji te bokk na ci li gën a fës rek mooy leetar bi nga xam ne moom lañ doon demandé ngir mën a tabax jumaa ji sëriñ Mbàkke la ko sëriñ bind loo woon moo ko bind moo ko bind loo mu bind ko ni mu ko waxee léegi waaye naka noonu tamit jumaa ji jubluwaayu xibla bi sëriñ bàkke moo ko def mu nekkoon ci ndigalu sëriñ bi radiyallahu anhu kon daal li ñu ko waxee rek waxtaanu day waxtaanu sëriñ Mbàkke day waxtaan day lu yaatu loo xam ne xajul ci benn jataay waaye liñ ci sëñ bi indil mënees na ko def ab yóbbal ñu man koo jëriñoo kon sëriñ Fallou dañ lay dool de sant rek ci turu daayiratu Muqaddamatul ma waaye ci turu lañu saqaafiya waaye ci turu lañ ne bi nga xam ne ñooy taxawal exposition bi di la sant di la marsawu ci coono yi xam nañ ne jamono ji xat na rawatina jamono ji ñu nekk mooy jamonoy màggal kon ñu ngi lay sant di ñaan suñu borom jéego yi dem yeeg dëkk bi yëpp mu def ko jéego yiw te ñu yàgg ko teewe te sàmm leen te aar leen ba li ngeen bëgg a liggéeyal xam-xam bëgg ko liggéey Sëñ Tuubaa ngeen matale ko ni ngeen ko bëggee waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.